Macky Sall def na bi gis nañ bu fa waaw liñ ci mën a jàngat mooy euh, dafa dajale ay nit pour ñu defal ko li nga xam ne xam na ne que du yoon xam na ne que euh, suñu sart ndeyu réew mi maanaam constitution bi mayu ko ko comme sañul taxaw moom ci kanam ci kanamu ñëpp assumer parce que du nit koo xam ne moom li muy def comme contrairement à ce day bàkku du bëri. musul bëre waaw bàkku moom mën na ko wante bëre moom bu jotee soit mu ne yow doo ñëw ci arène bi tey jii euh, bëre soit mu wutal la ñoo xam ne ñoo ko ko téyal téye tànk yi téye loxo yi mu taxaw ne day bëre donc noonu lay def su ko defee mu seeti ay nit yoo xam ne ñu mel ne défilé de mode man xaw ma collection 70 xaw ma collection 80 ah euh, yu Mandel Couture rek ñoom Juma Jang Jaxate ñu génn foofu sol seeni yére ah ñëw di ko waxal fekk dëkk bi 75 pour cent population bi seen i ay morom lañ ils ont moins de 35 ans ah bi collection yooyu bi ñuy génn yéen juddoogu leen sax ngeen naan ñii fuñ jugee donc loolu la non c'est pour faire un peu de mu un peu d'humour par rapport à la gravité de la situation ñooñu ñoo taxawoon foofu di wax parce que dara gënul euh, garaaw yow ak situation bi nu mu demee ak jalgati bi àddina bi yëpp di ñu seetaan boo taalee télévision yi ñiy wax Ukraine Gaza teg ci Sénégal yow ngay taxaw di kaf euh, 2030 euh, lañ dem élection 2020 xawma lan etc. c'est pas sérieux et donc on les a choisis ñooñu dañ leen tann pour ñu ñëw euh, def yefu yëfu caaxaan fait que situation bi du yëfu caaxaan c'est extrêmement sérieux donc ñooñu la jël pour jalgati avec constitution bi moo ñu taxaw tay ñu taxaw tay ñëpp andando ñu rafetlu nak li xew yéex na wanté ba légui rek ñu japp ci bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax baax ba kenn kenn kenn kenn du def défection comme niñ ko daan def <laughs> waxe bi ñu demee grève ñëpp and société civile politiciens yi ak euh, euh, organisation yu bari wara and war ko dello ci yoon jappalé ko mu dug dugg wat ci yoon su ko deful ñu jël suñu way rek. comme que euh, dialogue bi proposé le 2 juin té ñëw décembre lañ waxon mais du waxalé affaire bi du waxaale ñu marché déedéet dañ ne fii moom da boo duggee ci boutique bi ah, njëg gi dañ ko bind ah, amul kenn kooku nekk ca bunt ba ah nekk ca kees ga sula mayee leneen ci poche la koy jële def ko léegi nag fii amu fi dara loo xam ne dañ koy waxaale dañu def waaw mais léegi non fii ñu taxaw mooy yow yow yow booy dem yow boo duggee ci boutique boo xam ne këy njëg gi dafa leer da ngay yóbbu ak sa xaalis bu bët ah mooy li gën ci yow sinon loo fa fekk yaa ko teg sa bopp wala nga génn te doo am marchandise wala nga nekk fa di xuloog di wax naan ne Sénégal dafa bon tey jii kii dafa soxor fekk loolu yëpp yaa tooñ sa bopp boo gisee njëg gi te amoo ko dellul voilà donc euh, tey jii pour def analogie rek ne dëkk bi dafa war a dellu ci yoon ñu am charte ñëpp taxaw ci moom ci boppam mu ñëw 2016 am yu ci yokk. yokk ci yoo xam ne sànni caabi ji ca mbedd ma tey jii nag bu ne du ci taxaw loolu dafa day nekk problème moo tax de temps en temps dama naan est-ce que xam na lu mu yëngal est-ce que xam na lu mu soppi léegi nag bu taxawee naan ay 2 juillet 2 juin la koy def ak tey di taafantoo ne dafa am ay ay ay euh, ay euh, événement religieux ay gàmmu weeru koor ak yooyu ñu koy fàttali ne que 25 euh, février boobu. Euh, ba mu waxtaanee ak waa kër euh, Daaru Muxti dañu d'accord ne ko ko naaw bésu euh, woote bi la nañu def beneen bés ñuy fàttali ne fii amoon nañ fi Covid ah Dakar amu fi woon màggal amu fi woon kii amu fi woon woote benn bés rek la woote benn bés rek la te bu topp loolu moo tax loolu moo koy won ne ko ñi taxawoon ba jël date bi mu bàyyi lépp lañ seet lépp lañ xool. lépp lépp lépp lépp liñu xol xool lépp lu ñu mën a gis ne que mën euh, tax ba sénégalais yi bés boobu du am jot lépp lañ ko saytu ba ko téggé nak ci la jaxassé yef bi nak motax mu metti tay ji ah muy jess nak fan lay banqa mais non non non non gis nga prochain président bi légui lañ koy régler parce que ni ngay opposé xol leen bu baax opposition ni ñi opposé non la ñuy téye pouvoir man dama koy wax toujours na ni ngay opposé non ngay yoré non ngay yoré réew mi donc dinañ ci set sen sen demb dinañ ci set tay ni ñi def dinañ ci set euh, ndax dañuy jalgati pour bokk ndax dañuy compromis pour bokk ndax dañuy wéddi sen cadeau ndax daño yexi ak ay milliards fek euh, vraiment sen liguey man euh, demeewul nonu ñok ngi donc loolu yeb buñ ko sété dinañ xam lépp lu ñu war moytu pour que képp ku fi ñëwaat yore Sénégal en tout cas ñu kii. du dem euh, waa di wax rek ne amul benn loi amul benn yoon bu mën a euh, fexe ba ku fas yéene def lu bon def lu bon ndax loi yaa ngi fi di tere sàcc terewul nit ñaa ngi sàcc loi yaa ngi fi di tere yu bari di ba crime sax def ko crime ba léegi mi ngi am kon loolu mooy wan ne que ñun suñu taxawaay ñun askan wi suñu àndandoo ak suñu taxawaay loolu lañu ñu war a dëgëral mais bu ñu compter ci keneen ku fi nekk tey ku fi nekk suba ndi xalaat ne que moom euh, xëy na mu baax xëy na mu bon loolu du du dëkk bu dëgër daal. waa loolu moom ay waxu kasaw kasaw la parce que euh, d'abord ministre am nee na euh, li xewoon ci affaire u ay Adji Sarr ak Mame Mbaye Niang bokkul ci amnistie bi te su ma xalaatee su ma su ma juumul. benn bi mi ngi ci des na benn appel mooy affaire wu Adji Sarr bi euh, benn bi daan nañ ko ba moo ko tere bokk élection kon loolu bokkul ci amnistie bi kon ay taafantoo la ah li am ba am mooy Sénégal dafa signé eh, dafa joxe kàddoom ci ay ëtt yoo xam ne dañ naan képp ku def lu jëm ci rey nit lu jëm ci mettital ko ba mu naan koy wooyee torture amul droit am ne ñooñu amu ko droit daf ko signé kon am amnistie bii bu ci boolee ñooñu loolu jalgati na ay yoon yoo xam ne euh, bokku ci euh, waru ko def donc am bi tey ji boppam la ciy seet ak ñooñam euh, yi nga xam ne li mu leble bañ ko ko fay waaw dafa kii ba pare bëgg daw wa léegi nag loolu moom mënul am parce que du sax moom rek mais ëllëg ëllëg est-ce que nit mën na ñëw sal sot jël sa ay oto def ci ay nit ñu ñëw fekk ay xale ñii tiire ñii rey fekk ay nit ci kër ñii dóor ba mu damm a ah, ñii sotti ndox ci ay góom a ah, ñii jël boom famille Bodian a ah, dañuy seet benn nit rek bu nekk fas Gueule Tapée ñu ne dafa yore woon ay cocktail Molotov nga jël une famille sept personnes jë ba ci bébé jël ñëpp mais loolu yëpp ñu bàyyi ko mu dem non loolu déedéet kenn du ko bàyyi mu dem lim fu def lu garaaw la te bu fekkee ne dañ koo bëgg nëpp nëppal bàyyi yoon a ah, loolu du baax ci dëkk jërëjëf. Hmm. defe naa ne ku bëgg a dem doo toog di tàggoo bés bu. da ngay jóg dem. na jóg dem. ku bëgg a dem doo toog di tàggoog di tàggoowaat loolu mooy mooy mooy waaye doo leen ma téye waaye doo leen ma téye kon boog na jug dem te bàyyi tàggoo yi doy na sëkk te buy wax ak askan bi tamit na moytu yooyu xarale na moytu yooyu xarale kan la ko jublu ci kan la jublu lan la jublu ci buy defee noonu lu mu def rek am na lu ko calculer am na lu muy def yooyu daal te calcul jeex na daal na jóg rek ñibbi doy na sëkk <laughs>